képp ku jokkoo ak moom yal na sa aajo faju laata ñuy door xibaar yi nag ñoo ngi leen di fàttali yéen ñu ñuy topp ci youtube bi képp koo xamante ni abonné goo ci sunu compte tiktok li ñu lay ñaan moo di nga dem ci commentaire yi di nga fa fekk lien bi nga mën a abonné ca tiktok ba ndax loolee dina yokk dooley kër gi ñu door xibaar yi dooree ko ci waa Tëngéej football club ñoom nag xamle ñu ne seen góol bi tudd Ibra fal Jaxate dafa am blessure ca mbagg ma la yëg métit te lu mu gàtt-gàtt nag toog ay weer door a mën a taxaw ci ay kang di muy Ibra Fall Jaxate xibaar boobu nag neexul ci waat Tëngéej football club ndax ay weer moom du lu ay ndaw te lu mu gàtt-gàtt dina toog ay weer door a mën a taxawaat ci ay kang ñu jugee ci Ibra Fall Jaxate ak xibaaram bu naqari jël doomu Guinée Conakry bii di nabi Keita moom nag dafa amoon blessure gën ngeen koo gis sax mu dugg ci terrain football jamono ji nag wér na à cent pour cent weekend bii ñu dëgmal clubam jàkkaarloo ak Wolfsburg bu dara soppeekuwul ci diggante bi doomu Guinée Conakry bi dina mën a bokk ca match boobee doxal ñu jugee ci Naby Keita ak xibaaram bu neex jël doomu Serbie bi tudd Samardzic moom nag ma ngay football ca Udinese bu ñu sukkandikoo ci Nico Sira jege na lool ngir bu ñu yeggee ci weeru janvier mu jugee ca Udinese dem ca Juve doxal ndax Udinese ak Juve daanaka juboo nañu ci lépp te directeur sportif Juve tudd Giuntoli digganteem ak farata jamono ji nag daanaka lépp yemb na ngir bu ñu yeggee ci weeru janvier doomu Serbi bi jógee ca Udinese dem ca Juve jàppale Maximiliano Allegri xibaar boobu Nico Sira moo ko xamle. ñu jógee ci Zamalek ak waa Juve seeni bëgg-bëgg jël doomu itali bi tudd Wilfried Gnonto moom nag ma ngay football ca Leeds United club boobee nag dañoo wàcc daaw ñoo nga woon ca Premier League ba waaye ren ji ca championship ba ñu nekk doomu Italie bi nag. club bu ñu naan AS Roma ñoo ko bëgg te gone gi tamit bañul waa AS Roma dàqu lit jógee ca deuxième division bu Angleterre moom jaral na ko sax mu forcé bu fekkee waa AS Roma bëgg nañu ko li mu bëgg moo di waxtaan ak njiitu club ba mu nekk jamono ji di Leeds United ñu bàyyi ko mu dem ca Serie A doxal xibaar boobu Talk Sport moo xam xamle Wilfried Gnonto nag doomu Italie bu footballub Italie am ci moom yaakaar la ñu jugee ci Wilfried Gnonto ak waa AS Roma ak bëgg jël doomu Espagne bi tudd Juan Miranda moom nag ma ngay football ca Betis Séville gone gi nag ba léegi waa AC Milan bàyyeeguñu ko te ñoo ngi accéléré mbir mi maanaam ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal ko contrat noppi nañu ngir def ca ñeent jàpp juróomi million ngir gone gi jógee ca Espagne dem ca itali doxal ci weeru janvier bii ñu dëgmal li tax nag waa AC milla njortu ne mën nañu koo am moo gone gi kat contrat bi ko ak waa Betis Séville dara soppeekuwul ci digg diggante bi bu saison bi jeexee ñu yegg ci juin deux mille vingt quatre day nekk agent libre te bu boobaa nag waa bitis du ñu am ci moom dara loole bokk na ci li tax waa AC Milan bëgg baral jéego yi te am nañu yaakaar nag bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu mën a xaatimal contrat latéral gauche bi mu jugee ca Liga e-sport ba dem ca Serie A ba doxal xibaar boobu Talk Sport moo xam xamle. ñu joge ci Juan Miranda ak waa AC Milan seeni bëgg-bëgg jël attaquant Brentford bi tudd Ivan Anthony moom nag dañu ko ajoon ndax kat da doon jëfandikoo paris sportif aj googee sax bu ñu yeggee ci weeru janvier day jeex tàkk club yi ko bëgg nag bari nañu lool bu dee waa Brentford moom jaay ko gën a lut leen waaye nee nañu njëgam mi ngi toll ci cent quinze millions d'euros képp ku ko bëgg soo indee loolu ñu jaay la ko waaye ñoom nag jaay ko gën a lut leen xibaar boobu Sky Sport moo ko xamle. ñu jugee ci Ivan Toney ak waa Brentford dem ca waa Manchester City ñoom nag li ñu bëgg moo di seen défenseur bi nekk doomu Angleterre tudd John Stones ñu yokk atum mille vingt sept mu toog ca club boobee doxal waaye sunu noppee ci ay mbiram li ñu bëgg moo di songu mbiru Pep Guardiola moom it mu yokk contraam ndax kat liggéeyam rafet na ca club boobee di Manchester City mi ngi doxal mi ngi am ay ndam li ñu bëgg moo di yokk contrat wu Stones suñu ca noppee yokk contrat pep garjo la xibaar boobu Daily Mail moo ko xam xamle. ñu jugee ci waa Manchester City ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Allemagne bii di Kimmich moom nag ma ngay football ca Bayern de Munich doomu Allemagne bi nag dàqul jógee ca club boobee su fekkee bëgg nañu ko jaay sport 1 nee na Bayern de Munich de su fekkee dafa soxla xaalis su jaayee kimis mën na caa am xaalis su fekkee nag ubbi nañu bunt bi ngir jaay ko moom kimis dàqul jógee foofee ca Bayern de Munich waa Real Madrid nag taxaw nañu temm ngir su fekkee na daf koy jaay ñu xëpp ca xaalis mën ko contrat waaye yemul ci Real de Madrid kepp ndax mën Manchester City ak Barcelone tamit ñoo ngi bàyyi xel doomu Allemagne bii di Kimmich loolee la sport 1 xamle ñu jógee ci Kimmich waaye Real de Madrid duñ leen bàyyeegum bu ñu sukkandikoo ci AS yéenekaay waa Real de Madrid tànn nañu defenseur bi ñu bëgg ci weeru janvier ngir dolli seen dooley défense boobee gone gi mi ngi tudd Gonçalo Iñárritu ma ngay football ca sport Sporting gone gu mën la muy def la défenseur bu football am ci moom yaakaar la waa Real de Madrid li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu xaatimal ko contra li jafe-jafe bi kay moo di contrat bi ko lëkkale ak Sporting bu Portugal jeexagut te clause bi ko bàyyi ca club boobee mi ngi toll ci soixante millions d'euros kon bu ko Real de Madrid bëggee day waxtaan ak waa Sporting wala mu fay clause am ko contrat yóbbu ko ca Liga e Sport ba mu doxal muy Gonçalo nekk défenseur bu football am ci moom yaakaar xibaar boobu aas yéenekaay moo ko xamle. ñu jugee ci Gonzalo Ignacio ak waa Real de Madrid ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Pologne bi di Robert Lewandowski bu ñu sukkandikoo ci esport doomu Pologne bi noppi na à cent pour cent ngir samedi bu Barcelone di jàkkaarloo ak Real Sociedad mu départ titulaire ca match boobee doxal. kon bu dara soppeekuwul ci diggante bi bu samedi bu Real Sociedad di jàkkaarloo ak Barcelone day départ titulaire xibaar boobu sport moo ko xamle ñu juge ci Robert Lewandowski jël ancien suuru Barcelone bii di Ousmane Dembélé moom nag ma nga ca Paris waaye ba mu demee ca Paris ak tey jii nag doxalagut ndax jongante na fa douze match fukki match ak ñaar football na ko ca club boobee dugalugut benn bit ñaari passe décisive képp la amalagum Ousmane Dembélé nag